asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bokki jullit yi bokki taalibe ci ndigalul Serigne Sidi Mbacke xalifatu Cheikh Abdoul Ahad yàlla na fi yàgg lool te ànd ko jaar ci Serigne Amsatu Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke wàcc ci Serigne Mahmoudan Sill jëm nag ci mbooleem askanu Tayba wépp liggéey boo nga xam ne Serigne Sidi moom Cheikh Abdoul Ahad at mu jot dana ko teg ci loxol rakkam sëriñ Amsatu Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad muy liggéeyu tooli Daaru Salaam bukki barga di mbàccum gerte ak jëri ko ak roñ ngooñ ma ak roj gence ga xam ngeen ne liggéey boobu nag sëriñ Amsatu saa yu ko yëkkatee xelam dana dem Tayba waaye jaar ci buntam nag di sëriñ Mahmoudane Sylla loolu moo tax sëriñ Mahmoudane dajale bokk yi ci ndigalul sëriñ Ousmane Sylla mi nga xam ne mooy kilifa kër gi yëpp nag waaye mu bàyyi fi sëriñ Deqale Sylla mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi ñu fas yéene yëkkate ay kàddu woote liggéey boobu nga xam ne le 10 décembre lay am incha allahu rabbi moo tax danañ jox kàddu gi sëriñ Assane Sylla mi wax ci turu Baye Ousmane su noppee ñu jox sëriñ Baye Sylla nag ñu jox euh, sëriñ Amdi rakki sëriñ Mahmadan mi nga xam ne mooy wax ci turu njabootu sëriñ Moussaïna bu gépp kon ñu maa si déglu sëriñ Assane. ñoo ngi sunu kaddu ci ndigal sunu wajur bi nga xam ne jotaay bi sëriñ Deqale ak mbokkam soxna Ndeye Mbakke ak njabootu sëriñ Mirina ci ndigal lu mag bàyyi ko ci kenn ci waa kër sëriñ Touba ñi muy sëriñ Jiiri Mbakke liggéey bi liggéey sëriñ Touba. def at mel mu ne di ci sedd waa tey ab cër waaye mu jaarlu ko ci jëwriñam sëriñ Mahmoudan sa Mahmoudan itam cër bi ci moom réew goo xamante bii ne saa bu dikkee ci moom du ci am luy bëgg du ci am luy bañ daal di yëkkati lépp tekk ci loxol baayam ngir moo ko ci doy sa Ousmane nag réy gum réew fi moom ak bëgg na ko siñ see da lépp àgg ci dara Sëriñ Tuubaa tax na mbooloo rakam ak njootoom gépp wante mu di leen xamal ne liggéey bii mu ngi ci woo képp koo xamante bii ne yaa ngi bokk ci kër sëriñ Mirina ak noo ci bokkee ak képp koo xamante bii ne mas ngaa dégg sëriñ Mirina te bëgg koo liggéeyal te gisoo ko jàpp na boo boo tàbbee ci liggéey bii da nga am ngërëmu sëriñ Mirina ngir mooy jëwriñ sëriñ Mirina te moo ko woote kon mi ngi ñaan fépp fay nekk na waaj tam nu àndandoo ñëw fii ànd ak sëñ Mahamadan dem ci liggéey ba yàlla dimbale nu ci darajaam moom mi nga xay moo nu yabal di sëriñ Ousmane barkeb ki tax mu yabal sëñ Mirina barkeb ki tax mu yor muy sëriñ Touba sàmm def ci dab loo xamante bii ne dana kawe lépp lu ma sa am sëñ Ousmane nee na mu ngi ñaan ci barkeb Xaadimu Rasuul yàlla dem ci jàmm dikk ci jàmm day ca ngërmal sëriñ Touba te dara bañoo gàllankoor ci barkeb Xaadimu Rasuul. ñu ñun sax baaxoo ñun genn kilifa rek lañu am su waxee waxaale na ñëpp waaye ne lii day day luñ ma sant ba noppi it muy lu war man moo ko ñàkk wax moo moo waral sama kàddu muy liggéeyu muy liggéeyu suñ séeri bi nga xëy nii teg na ci loxo suñ Mahamadan mu tekk ci loxo Baye Ousmane muy suñ Medina yàlla na fi yàgg te wér bàkk Sëriñ Tuubaa yàgg ci ginnaawam man nag képp koo xëyee nii Baye Serigne Touré mooy sa buntu ci ci maam Serigne Mirina talal loxo maa ngi woo ñëpp nañ ko defoon daaw nañ ko defee ren nu ko raw luñ ca man ak luñ ca mën nañ ko def luñ ca mën nañ ko jéem ma ma maa ngi ko sant ñëpp daal sëñ Mahamad danet keroog moom ma waaye wax ma ko moom daa am daa am lu ma ko soxee moom nee naa ko daal la ma la ma daloon daaw daal moom moom moom gaal naa ko ba ma dal la ma doon dawee sama tële yaram moo ma ko moo moo taxoon ba ba jotuma dikk ñoo xam yabal naa itam wax daal doy nañ ma sëkk seen taxawaay rafet na wante na wante na lu baax du doy bu ma bu ma koog ñoom waaw su ma sañoon koog ñoom ku kon nag maa ngi woo ñëpp bu fa kenn jiitu bu fa kenn bu fa kenn man maa ngi wax ci turu sëñ Mourtalla Syll maa ngi woo képp ku bokk ci kër Serigne Mourtada Syll moo xam doom nga wala nga taalibe nga wala ngay kóllëre ñu ngi woo ñëpp ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyub sëñ Sidi Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Ahad moom ñu liggéeyloo sëñ Mahmoudan mi ca Darou Salaam bukki barka kon nag wax ju du gudd maa ngi woo ñëpp li ma gën a tam ñëpp nañ teew bu kenn indi aw lay ku ko mën na nga ñëw ndax yitte joo xam ne ñor nañu xomm ñun dañ cee am war am ñaari tànk ndax kat suñu laat lañ yaakaar kon nag suñu Mouhamadou suñu jëwriñ ci seen laat gannaaw woote ne ñëpp dañoo war a teew bu kenn naa dama am gàllankoor nit ku ne yaa ngi dox say soxla yaa ngi dox say aajo liggéey bi nag moo ñu gën a ñor ci lu mën doon ci àddina kon nag maa ngi woo ñëpp muy doom muy sët muy taalube muy wëllëre ndax Baye Ousmane ñu xam ne mooy sëñ mbir na sëñ mbir na mooy suñ bunt ci sëñ Tuubaa ñu wële sëñ Tuubaa sëñ laat mooy suñ bunt ci sëñ Tuubaa te Baye Ousmane woote na bi ñëpp dégg nañ ko wane ñëpp kon maa ngi woo bokk ju bokk taalibe yëpp bu kenn woote bu kenn dégguma ko ku dikk danga ma fekk euh, ku dikkut it moseen nga ñëw ku mënta dikkit euh, boo ma mënee am loo barke barkeeloo baax na waaye nag dikk gi moo ñu gonan ndax mbàcc moom doo euh, mbàcc ak jëri moom ab xaalis defu ko ay ay ay ay ay defu ko nañ ñëpp ñëw te kuy ñëw nga indaale lu ñuy bàcce bàcc ñu ñu ay baykat lañ xam nañ bàcc bàcc ak jëri ak for ak roñ gerte ak euh, roñ am ngooñ ay caaxaan def ko waxuñu ko barkeelu suñu ma xamal leen ajuma buy départ na ñëpp teew ñu bokk moom nekk fa ba liggéey bi jeex ñu ñibbisi bu kenn indi aw lay nag. maa ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a rafet di ñaan yàlla mu fekk leen ci jàmm ak wér di dellu di waxaat alhamdulilah banu suñ sii di yéene xéewal ak jàmm ba liggéey loonu loolu ñun ñëpp war na ne alhamdulilah ndax ku la liggéeyloo ku nekk yéene na la njariñ kon nag sant nañ bu baax a baax a baax yàlla sant suñuy waajur sant sëñ Mahmoudan mi ci suñ kanam ci ñuy wax ci aw turam ndax kat liggéey bii lu ñu fonk la lu rëy ci ñun la ñu ngi woo waa kër sëñ na bu ñëpp di waa waa kër ñëpp bàyyiwuñu kenn daayirab gone yi maa ngi leen di woo ñoom ñëpp ci turu Balla siis ak Massir Bey bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn mayuñu kenn ngànt yi itam daayirab jigéen ñi maa ngi leen di woo ci turu Ndey Njaay Alewaat bàyyiwuñu kenn ndax bàcc ak jëri lañ fay def ca jigéen bu munta bàcc itam mën naa jëri mën naa for kon bàyyiwuñu kenn mag ñi ñëpp maa ngi leen di woo ci turu Baye Daam Ñang ak bàyyi Ibra Jeng bu ñu munta demee itam mën nañoo yabal seenu njaboot kon nag ñi ngi leen di ñaan ñun ñëpp nañ fa teew ca ku dem na nga xam ne bala ñu faa jógee liggéey ba dafa àgg ba bañ jot jërëjëf sëriñ bi ndax ab liggéey kat dem rek ne damay lu ñëwaat taxul ñu di ko woote la ñu bëgg daal mooy bu soobee yàlla ajjuma lañu fi fiy li ñuy ñaan yàlla mooy yàlla may na bu ñu demee liggéey ba liggéey ko ba mu àgg ci jàmm ak salaam. sëñ ba yéwénu ñu bisiwaat ci jàmm ak salaam maa ngi woo ñëpp ñëpp ñëpp képp ko aju ci kër sëñ Moussa Diop moom waxaale wu ma la moom maanaam mënoo ñàkk moom dem bu la dara dul mënoo ñàkk dem kóllëre yi ak xarit yi laay woo waaye ñu nekk ci biir kër sëñ Moussa Diop moom lii sunu sas la ku nu ñëwal da nga nu cee dimbali si waaye ñun lépp ñun la war kon nag ñu ngi leen di woo. di ñaan yàlla may leen jàmm ak wér may leen ko tal ba ngeen mën a wuy si ñu liggéeyal sëñ bi ni mu ko bëggee yàlla may nu ci tawfeex ak taysiir ba ñu defee ko ni ko sëñ bi bëggee loolu rek laa leen mën a laa jottali. jërëjëf mbokk yi ñoo jot a dégg woote baa ngi noonu di mbàccum gerte ak jëri ko roñ ngooñ ma ak roñ geej ga di amee ca daaray Daaru Salaam bukki barga départ bi war a nekk ajumala la neuf incha allahu rabbi di amee fii ci kër Serigne Mahmoudane gi ne ci marché Ocass waaye di amee nag ca Mirina ak mbooleem tund wa lépp nag Serigne Mahmoudane nag nee na ci ndigalul Baye Ousmane mi ngi ciy soññi bokki tay ba yëpp nag waa tay ba daqaar ci njiitul Serigne Dame Fati tay ba xay ci njiitul ci faat Fatma waa Taïba Kalom ci njiitul sëriñ Massaer Balla Paté waa Taïba Ndaw ci njiitul sëriñ Moustapha Sill Taïba Sanc sëriñ Mor Sill jëwriñam sëriñ Bàcc ba Ndaw waa ba Njaañ ci njiitul sëriñ Cheikh Sill sëriñ Moustapha Oumy Taïba euh, euh, Xabsu waa ba Njaañ ci njiitul sëriñ Cheikh Sill ak waa Silatu Rahim ci njiitul sëriñ Kabbu Sill di ko yëgal waa Tawa Gàdd Xabsu Pew Fall Ngajaga ak waa Ndindi waa tund ba wépp bàyyiwul kenn di leen xamal ne daal liggéey baa ngi noonu te ndabul xiwal la loo xam ne sëriñ Ousmane si la nee na yéene na ko tey euh, askan wa wépp nag mi ngi ñaan képp koo xam ne teew nga Daaru Salaam bokki barga yàlla yàlla far say bakkaar te dolli say xiwal adduna ak yol alaxira wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu